daanaka boo xoolee depuis quarante ans promoteur immobilier yi ñoom la ñu jox ñuy nu ñuy tëral nan la ñuy dëkkee te promoteur immobilier moom privé la soo ko joxee 100 mètres moom day fexe am ci parcelles yu bari waaye du xool ndax mbedd mi yaatu ni mu war a yaatoo ndax ndox jaar euh, fa mu war a jaar jaar na fa ndax euh, courant fa mu war a jaar jaar na fa loolu sax xaj na dinañ ko dinañ ko jéem a respecté mais fu ndox di jaar eau pluvial fu ndox di jaar eau usée en général kenn ci ñoom du ko respecté. xanaa looloo tax peut-être yenn quartiers yi du ñu inondation bi du yàgg quelques heures comme ni sax mais souvent c'est dans la banlieue en tout cas yenn zones yi la ñuy gën a seetlu yooyu. waaw yooyu yëpp soo xoolee tamit euh, effectivement étude boobu aussi wane na ko 40 pour cent. suñu dëkkuwaay. maanaam euh, info comme li ñu doon wax ci informel. moom la maanaam dangay gis rek nit ñu ñëw euh, tëral ak benn aménagement bu somaire mm-hmm. def ay mbedd yu sew kër dëkk euh, kër yi duggante loolu nag ku ci nekk am na ci responsabilité d'abord état bi nga xamee ni moom mooy tëral ay normes euh, képp kuy tabax Sénégal normalement war nga am war nga dem ci nguur gi mu ne la fii mën nees na fee tabax wala kenn mënu fee tabax nguur gi aussi am war a am ay instruments instruments yoo xamee ni da koy may mu mën a xam fii fu ñu war a tabax la du jur jàngoro wala wala du doonu ko par exemple euh, am na élément de planification bu am solo boo xamee il faut nguur gi gën cee góorgóorlu. Mhm. xam naa ni am na ci. Mhm. mooy euh, modèle numérique de terrain. xam nga dakaar dafa nekk dëkkuwaay boo xam ni euh, géej a ko wër. waaw ba pare mu bari ay gox yoo xamee ni dañoo nekk ci yoonu ndox ndax dakaar dafa mos a bari ndox Cap Vert lañ daan wax ñu ngi ko fàtte. ko mu nekk succession ay zone yu yu kawe ak ay zone yu suufe yoo xamee ni daanaka zéro ba cinq mètres. par rapport ak géej gi lañ toll donc zone yooyu euh, yu ci bari kenn waru fa dëkk léegi nag bi ñu toogee lu yàgg am euh, sécheresse bu xaw a yàgg ah. zone yu bari ci la ñu sëkk dëkk fa ba yenn ñi xam nga lu ñu sëkkee mbalit dañuy gis mbalit ñu dajale ko lu bari sëkkee ko benn benn kii mbalit boobu bu demee ba nëpp kër yi nga xamee ni moom lañ fa tabax kër yi dañuy wàcc dañuy affaissé wu te loolu bari na fi maa ngi fàttaliku benn quartier boo xam ñun dañ fa defoon gëstu yu bari muy quartier Madieng Khary Dieng lañ ko tuddee woon mi ngi nekk euh, foofu noonu euh, kii euh, Guédiawaye Khary moo nekkoon ministre de l'intérieur parce que li muy li mu doon symboliser ci ñun gës ñu doon def mooy fi ñuy ni ñuy jaare ci yenn autorités yi aussi pour am yenn permission yi waaw waaw loolu tamit loolu tamit bokk na ci li indi problème gouvernance bi ma doon wax maanaam yenn saa yi aussi day am besoin ay nit ñu bëgg dëkk ah ñenn ñi euh, nga mën nga war leen a dimbali xam naa ne moom bu ñu waajee wala ñu nekk say militant wala leneen su ko defee Dakar moom mooy li may wax rek décentraliser dakaar ba nga xam ni peut-être nit ñi duñu mën a dugg dëkk say habitation euh, spontanée loolu principalement daal en tout cas moo nekk problème mu Dakar mais ni nu ñu mën a def ba pas lutter contre les inondations terme boobu man dama ko xaw a euh, dafa xaw a doy waat man gestion des inondations laa jàpp muy fekk li ministre bi doon wax léegi maanaam mooy inondation comme du fi jóg danga koy gérer il faut vivre avec les inondations il faut vivre les inondations c'est un terme boo xamee ni mën nañ ko <laughs> emprunter vivre avec le Covid mën nañ ko parce que parce que dootu fi jeex euh, euh, teyit ndox dafa doon loo xamee ni dañ koo soxla dëgg comme dañ koo soxla buñ ci amee lu bari. Ah. dañu war a jàng naka lañ koy gérer. donc duñ ko exploiter loolu am na solo loolu perspective yi dinañ ci ñëw damay jox Pape Sidi Pape dama bëgg dama bëgg internautes yi di intervenir lu bari. parce que certainement voilà intervention yi ça